mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defaree saa ne ndaysaan tey ñu ngi fii ci arène nationale làmb ju mag dox ci diggante soq ak Gamou Gueye mbokk yi mu doon làmb joo xamante ni nee naa la combat espoir la waaye arène nationale actuellement foo sànni mbàktu mu takk ndax la lamb ji moo toll noonu Sokh dugg si na daw dongali mbooloo Pikine gépp yuuxu Gamou Gueye dogg si mbooloo gépp doole dugg si mbokk yi kon noonu lañ leen def ndeysaan ak jaw production moo ñu fi woo Baba Jaw ndeysaan ñu ñëw indi leen lépp loo xamante ne ambiance la cosaan la ci wàllub làmb lépp loo xam ne day deexal làmb kaay ñu dugg xool sox xale baa ngi noonu jëlal kàggu kii moo jóge Pikine doomu Pikine baa ngi nii ndeysaan tey boo dëkkee ci gox di bëre ci gox waa gox ba ñëw topp la xam-xam dana feeñ waaye bëre dana xeeñ boo gisee soq nag macha allah nga xam ni tey bis day nduru borom respecté na bis bi jox na ko cër bi mu moom xolal la mu téye ci loxo ba ndaysaan xolal sengoor yi xolal béjjën yi xolal laar gi xolal so salaam dal rek jàmm ak dal rek waaw père d'accord waaw. sant yàlla rek. sant yàlla rek. tey dinañ dégg bàq soq. dinañ dégg bàq. ndeysaan ndeysaan soq ngoog ndeysaan ndeysaan soq ngoog soq loo nar tuus tey loo nar tuus. Pikine képp a ngi sa ginnaaw tey loo nar a

na waa Tasasar doomu Pikine bay waaj tuus moom soq soqay waaj tuus ñu dégtal leen tuus soq tuuti ngeen xool lan la soq indi ak ay dëggkatam kaay leen ñu déglu bu ñu dégloo dinañ dégg ñu déglu bàkk xam tey lan la Gamou Gueye indi du yomb <laughs> Mamou Gueye ndeysaan Gamou Gueye yaa ngi noonu dara nañ yàlla baax waaw ni daan waaja rek di ñaan yàlla suñu borom yàlla may ñu ndam quoi lamb bu yomb amul mais mën ngaa ñëw liggéey lu bëri mu yomb mais bu ko yombal tool bu waaw xam nañ ko ndax man nekkoon naa entraîneur am. waaw lan la gën a mën du ma la ko wax fii mais li ma wër te wër mooy. Ah. li mu yaakaar bu ko defee dina damm. lan la kan mën a gën a fort. li mu yaakaar bu ko defee tey dina damm lim daal. Ah, du demal lu koy topp tey soxla. soxla loo doon wut fee loo doon wut fee. loo fa doon wut. yàlla baax na. après yàlla baax na yàlla bi nga soxla di set. rendre hommage sumay frère rek. waaw sumay frère laay rendre hommage rek. am na solo. waaw mais maa ngi sant. ana waa Gambie. ñu ngi fa. ñoo ma eh? ñoo ma yónnee Assane <laughs> ah. mi ngay bëreel tey loo koy indi. <laughs> allah waa Pikine daa mel ni bis am na fu leen toll. sant yàlla rek. daa mel ni damaa gis beneen Sokh ñëw tey sérieux jox bis bi cëram. bis bee laaj loolu wala yaa waaw suñuy frère lañ suñuy frère lañ yàlla ñu bokkoon ak ñoom métier bi borom jël leen man xamee ma ku dëkk Tëngéej ak ku dëkk Mali laa yemale ñun ñëpp ay frère lañ tey lii ñun defaluñu yàlla li waral mu bàyyi ñu fi yóbbu leen kon lii war na ñu leen rendre hommage day wane ni ñun suñu xel ba tey mu ngi ci ñoom ndax ay ndaw lañ ñuy ay ndaw comprendre nga ñu deewee ndaw mu metti lool dañ leen di ñaanal suñu borom xaaree na àjjana ci barke yonent bi def ma ko ngir lenn def ko ngir jaxase def ma ko ngir lu ñaaw ndax man du ma wax lu ñaaw du ma fekkee fuñ koy defee li wér te mooy yal na leen yàlla xaaree àjjana fil daw ci barke yonent bi kese kese amul leneen. ñii ñoo ànd ak Gamou Gueye ndeysaan xale yaa ngi noonu. góor yàlla ñu ngi lay ñaan. Gamou jël ndam le. oh. Gamou Gueye xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii te benn mbaru tënkeeñ moo nga. Pikine cinq mbër fa génne déggoo ma de mais yal na yàlla suturaal may ñu ndam incha allahu rabbi piir ay léebu lañu waaw ay léebu lañu waaw ay léebu lañu ay léebu lañu ndeysaan déggal léebu yi ndeysaan ndeysaan combat baa ngi noonu quatrième combat de la soirée dox ci diggante Bébé Diène ndeysaan ndeysaan bébé Guène bàcc seeraas la ne bébé Guène ak ki nga xamante ni mooy ndeysaan bébé Guène bébé moo féetee nii moom mooy bërëg soldaaru yëmbal moo féetee ne ndeysaan bébé ak soldaar yëmbal soldaar yëmbal sànni na sengoor ci ginnaawam bébé Diène mu ngay leewaatoog ñoom Ndaysaan Bébé Diène nag écurie Bathie la nekk Ndaysaan soldaaru yëmbal Ndaysaan Ndaysaan Ndaysaan waaw waaw Bébé Diène soldaaru yëmbal Bébé Diène Diène daan na daan na Bébé Diène daan na daan na daan na daan na soldaaru yëmbal daan na ko daan na ko al aada ndeysaan lii lañu moom lii mooy suñu culture lii fépp fu ñu ko exporté yóbbu ko fa ndeysaan moom mi ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan xoolal ma lii lii daa rafet lii foo ko yóbbu ci adduna bi mën nga koo jaay ndax ñoo ko moom lii. waaw ah bii nag xam naa ne. koroñ la waaw. waaye xale bii lii nag ay affaire yu lébu la. ndeysaan jaraaf yeeg ndey ji réew yeeg yu mel noonu ñoo yëngu-yëngu yi. ndeysaan Paul a ngi noonu Paul bu daaru le grand champion. ndeysaan am nga bis bu rëy. ndeysaan. fay naa la. wéyul bu ma fit. xam nga bu ma fit. xam naa ko daa daa dem ba mu dem moo tax mu taxaw. dama bàyyi. waaw ah, da ngaa bàyyi. waaw mais mënoo maa daan war na Seydina Mohamed. da dem ba sonn mënoo dem moo tax nga bàyyi. non non dañ dañ may aj nag yow xamoo da ngay tardé garaawul yow yàlla nga dem te yàlla tax. wóor na maam Sëriñ Fall nga dem yow yàlla nga dem mais dama ne la yow mënoo maa daan. waaw baax na barki Seydina Mohamed. ok jaajëf. bil eh yow ba nga doon champion. ok jaajëf eh, toj waaye yow bàyyi nga bëre ba pare. man dama toj man bàyyi fan man bàyyi man day bëre yow. man bàyyi ma bëre. waaw léegi damaa war na rasulullah yow maa leen tey yow fu. man man na mat na mat na alxuraan karim pour yow da ngaa baax yow mag yow bu keneen sax moom day métti yow. yow da ngay mërum war na Seydina Mohamed maa la maa la baax barki alxuraan maa tax sa tey xeex ay bay ko ay bay damay ndey ragal yow ay ay tous yow coow ngay tous coow ngay tous kii coow lañu ko xaalis. waaye kii coow lay wut waaye kii du moom bu ma fit moom combat la bëgg. yaa may dégg man sama bët ci ay Balla Gaye 2 laa ko teg ay mët loo mais du mag bu ma ñu gis tey ñu gis nga départ Thiès. waaw bu dee amul ku jógee Thiès ñëw. waaw mais nga ñëw teew lan moo doon sa teewaay tey ci lamb. waa démb dama amoon combat man ak Caatu Yoof ñu ñëw ba ci abéance bi pour war a def remise de drapeau ñu woo sama ni ko Thiatou Yoff delloo na avance bi ma ñëw tey nag pour xamal sénégalais yi ni leen noonu la demee ci Thiatou Yoff la la yàqoo mais démb la ñu waroon def signature contrat man ak moom. di ko wax ni nag bu jëlul combat bi moment yi ñu toll ci kanam tuuti man dootuma ko jël xam nga li ma lay expliqué ñun ay xale lañ dañoo war a bëre ñii dem dem ñii xaar xaar yaa ngi may dégg mais affaire ragal ñuy def di jéem a teg ay raw te moom Bébé Diouldé la mujjee daan ma mujjee ki mu daan rek laa daan yaa ngi may dégg mu am treize combats ma am onze combats kon war nañoo mën a bëre yaa ngi dégg mais kon bu nekkee fii di wax ay affaire di raweel ak affaire yooyu noonu daa ragal day bañ daanu loolu moo tax. mais tey dañoo gis Gamou Gueye ak Sokh sa xel xanaa dafa nekk foofu. waa Gamou Gueye ak Sokh man ak ñoom ay naataango lañ. waa di leen ñaanal ñu bëre ko ci jàmm rek que a meilleur gagne man daal instant yii ku booleel pare naa pour bëre yoo xamante ne ñoo fi amaguñ combat ñan lay nekk suma juumul laal waaw combat bii di bëre nii ñoom ñaar ki ci daanu ak ki daan yëpp man moom làmb la yeneen combat yi taxaw tamit ay kéwél ak ñàkk jariñu man ñoom làmb la ay qualifié deux mais ñi ma war a bëreel ñu ci bëri dañoo am combat quoi noonu la deme loolu moo tax. kontaan nañ ci yow. jaajëf waay. waaye xale yaa ngi noonu ba tey. ndeysaan dox ci diggante Assane Thiass ak Building waaye combat bi daa yàgg combat bi dafa yàgg loolu ñoom ñaar ndeysaan ña ngay cokkaas dara xewagul Assane building ndeysaan xoolal Assane day cokkaas rek dóor yooyu ubbu làmb ji building dóor na Assane Thiass building ndeysaan Assane Thiass building ndeysaan jëli na ko jëli na ko rokos ñu doon ay rokos ci suuf ci suuf waaw mënut a ñàkk loolooy sigil ma def li ma bëgg a def bàcc seek borom itali maa ngi lay bëggee Assane est-ce que dina ko ko may nee naa la building fu mu toll nii xeex bi rek la gis ndeysaan Assane jàppante na mais mënut a def effort bay bay bay balla li doy na waar doy na waar ci combat xale bay balla waay ma ne ko doy na waar wax naa la ko léegi xale boo bëggee doon champion da ngay xar. fàqat na ko yanu na ko daan na. waay oh! la la ay bii jël. Oh! waaw waaw. comme xale bi mi di naan mooy am na kuy dugg si. sa diggante ak Baba. sama waay la sama waay la. yàlla na defal jàmm. nga am ak cër nga seen dogoo tey lan ngay waxaat. waaw kontaan rek. bilaay kontaan rek. waaw kontaan naa jaajëf. waaw. ñu tuddee le bu mag. waaw dox ci diggante Sokh ak Gamou Gueye ñu nekk say frère. waaw sant yàlla rek. sant rek lii moom ah, c'est une première moo tax yàlla na yàlla yàlla def jàmm. kontaan naa trop jaajëf. El ngi noonu. ndeysaan tàllal na Diène Kairé loxo. ndaysaan tànnal tàllal na public bi loxo moom El Hadj Keita ndaysaan moom la ñu duppee bis bi tey xale la ndaysaan ñu jël bis bi dara jeelay ko ko ndaysaan bis bi tey bu doon ay alal moo tax ñu di ko ko tuddee amaana na am na ñoo xamante ne ñoo ko ëpp daraja ci réew mi mais boo nekkee xale nekk ci réew di ci liggéey liggéey bi ngay liggéey am solo. ngay xamante ne xale la waaye xale bu am jom xale la boo xamante ni mu ngi yëngu ci musique waaye mu ngi ciy bay waaram ay moromam la ci nekkal ay njagañaaleem la ci nekkal waaye tey tuddee nañ ko bis gis nga ko def na garab bu boobu macha def koppati am ay xaritam ndeysaan loo wax ci moom. moo fu nekk. foofu nag. ak Serigne Touba mu nekk xale. nga jël bis bi. amoon na ñoo xamante ni daanaka. ñu ëpp nañ ko koom-koom. mais nga jël ko dara jaale ko ko. ndax liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu koy def ci réew mi surtout doomu Medina. kii dama bëgg àdduna jàppale ko. ndax naw la gëm na boppam. te xol bi dafa rafet. ak Serigne Touba foo ko fekk day kaf reer. lii dama ko def ngir nekk mais dafa ma ko ngir xaalis ndax man suuna naa dem tey soog a ñëw. dëgg la ak Serigne Touba mais xale ba xale ba xale la. jërëjëf gis naa la. jaajëf ñoo far ñoo far ndeysaan kaay ngi présenté combat yi yaa ngi noonu. ndeysaan xoolal ma double moteur indi na ay picc ma ngay naawal ndeysaan ndeysaan xanaa daa ne ci combat bi. ndeysaan ma. Double Moteur nuyu naa. voilà ñu lay fay. tey nga ñëw ci signature bi mel ni ku ne ci combat bis bi moo laaj loolu. wala waaw bis bi moo ko laaj. ñu lay xaleel ne rek. lamb la ñuy dund. am na lu ma la waxoon dama la koy waxaat. ñu lamb lañ gëm lamb lañ yaakaar ku ñuy jàppale si lamb nga ñuy jàppale. te moom na waaj te xam ne am na combat. lu ngeen doon waxante ci digg bi yéen ñaar. waaw waxu rek ku nekk da ngay wax li nga xamante ni moom moom nga gëm. en tout cas li ma koy wax moom mooy na xam ne mi ngi doog yab mi ngi doog am combat. waaw làmb ji laaj dañ toog un an bëriwuñu waaw dañoo toog un an bëriwuñu corona mu metti ñëpp nag moo tax bu ñu dabaatee retour rek foog mu wutee ak yeneen yi nga xam daan moom la doon ñëw. waaw combat bi teguñu ko fenn fu dul ay xale lañ. moom bu ko jaralee benn ñun jaral nañu ko fukk ñoo ko gën a féete ndaw ñoo gën a soxla fuuf moom bi muy dugg ci làmb maa ngi di jàng boo comparé moom bi muy dugg ci làmb ak man bi may dugg ci làmb rek rawee na ma presque ay 7 ans 8 ans boo boolee ak 10 ans yi nga xamante ne moom la ko la ma magee day presque day jege 20 ans kon ñu ñoo gën a nekk xale téeméeri junni yoon. soxu dama ne ko yàlla na la yàlla may ndam waaw. xanaa Gambie fekk leen yéen ñaar ngeen bokk benn lal di préparé te lamb ji la woon boobu lamb ji la woon préparé ma doon préparé c'est pas may ma ndam mu desoon Bébé Diène dafa daanoon man ma daan moom mu desoon moom kon dama ko ñaanal yàlla may ko ndam parce que man moom laa xam waaw yaa ngi waajal bis bu rëy nga ñëw jàkkaarloo sa adversaire tey signature bi mystique bi daa bari lan la waaw lamb la lamb la baaxoo kii ba doon football doo gis yi la lamb lañ nekk lu lamb laa dama koy def dan nga koo bëggoon wër wër bi difficile ci yow. mais mu jël nga koo wër wër ti bu tànk bi jël suuf si joxe loolu lan la. non dama ko koy naxee xale la. Zal moo ma ci aas mais magum xel la du magum du magum xale la maanaam amul xel te dama ñëw nax ko daan ko nag jënd bu rëy. tey nga gis top 5 boo musul gis si kàttanu yàlla incha allah. xale baa ngi noonu. ndeysaan. ndeysaan baa ngi noonu dox ci diggante Eumeu Sène Junior ak Thianta. ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu kàggu xeex nañ xeex bu sax te neex sànq jàppante ñoom ñaari ngi noonu ndaysaan Eumeu seen ak Thianta saan Eumeu Sène junior ndaysaan Eumeu Sène junior ak Thianta ndaysaan ñu ngi noonu Eumeu Sène junior ak Thianta ñoom ñaari xale yi ñu ngi ci kombaa bi combat bu neex la ndax ñaari njool la ndaysaan ñoom ñaar ñépp ñaari njool lañ ndaysaan xale yaa ngi noonu Eumeu Sène Junior ak Thianta ndaysaan ñu ngi noonu Eumeu Sène Junior ndaysaan ma ngay dóor ay percute ci suuf ma ngay dóor Eumeu Sène Junior ma ngay dóor ay percute ndeysaan Eumeu Sène Junior ak canta ndeysaan Eumeu Sène Junior ak canta ndeysaan ñu ngi noonu Eumeu Sène Junior ak canta ndeysaan ña nga noonu Eumeu Sène Junior Thianta fàq na mu bañ ndeysaan ñaari xale yaa ngay bëre Eumeu Sène Junior ak Thianta ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Eumeu Sène Junior ak Thianta xale yaa ngi noonu ci combat bi ba tey Eumeu ñaari xale yi ma ngay dóor ay berkil ci suuf ma ngay dóor Eumeu Sène a ngay fayu combat bi dina yombam déet ñaari njool la gis naa fi may xeeñ bëtt jaar ci paqataan taxabal daan na ko la ilaha illallah ndeysaan xale ba daan na caddaa daan na daan na jël bu rëy ndeysaan xale ba wane na boppam caddaa wane na boppam xale ngi Soko Sim temps yi da nga maa bàyyi. bàyyi ma la yow yaa envoyé vocal sax doo ma toog sama xarit xam nga rek ñàkk a jot barki alquran walaay walaay waaye sama waay nga yow yàlla ñu boole man ak yow. indi Gamou Gueye mu nekk sa frère. war a bëreeg soq combat bi nan ngeen ko waajee ak nan ngeen war a a génnee ci ko yàlla rek ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonante bi euh, waaj nañ ko ànd sunu mbokk yëpp ànd waa Tëngéej yëpp waaw waaj nañ ko bu baax a baax a a boo xoolee gàmbu xam ne pare na si lépp bu sooxe indee xeex ñu duma nga bu bëree ñu daan. yow foo toll. ñu ngi waaj rek ànd ak sama staff ànd ak samay mbokk bu ñu ma bëri suba sax ma bëree. promoteur bi dafa demoon benn sortie ne woon na ñaari mbëri mais Serigne Ndiaye de nangu woon na mais yow yaa ne woon pare woo lan moo taxoon nga ne pare woo. promoteur masuma woo déggu ba promoteur bu ma woo man damay entraîné rek man lamba ji. la ñuy woo sa staff la ñuy woo. lamba ji xaw ma si dara bu ñu demoon suba demal bëre ji ma dem bëre ji suba. dañ nga fas yéene bëre ak saa yi buñ paree rek. pare nañ man buñ demee suba sax ma dem bëre. seeti naa ko fan yee mu ne saa yu la neexee nga pare mais bis boo ñëwee jàkkaarloo moom xam ne Serigne Ndiaye dëgg nga. waaw loolu mën na nekk loolu ay wax la rek. waaye nañ bàyyi ba bés ba rek ba mu ba ñëw rek incha allah rabi su ma ñëwee rek ñu xam ne Sococim bu bees tax a ñëw. ñoo jugee ci écurie Père Balla Gaye dellu sa gox dellu sa dëkk dellu sa cosaan li wolof naan foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu kon ñibbi nga sa dëkk. non fële sama chef la maa ngi ñaanal Balla Gaye 2 combat yi mu jël yëpp yal na ko yàlla may ndam di ñaanal waa écurie Balla Gaye yëpp ku si am combat yal na la yàlla defal ndam dama ñibbi nag samay mbokk nit ku nekk amul lu dul ay mbokkam dama ñibbi sama mbokk maa ngi ànd ak samay mbokk di liggéey waaw. jaajëf final fay naa la doom yaay. nga am sa rak indi ko tey mu war a fas laale. ban conseil li ma wax mooy teel lamb la nag. waaw comme niñ ñu daan ñawee rek la ñu yabee di ko ñaanal yàlla may ko ndam mu jox adversaire respect point. ana paa mu ngi nee nag mu ngi nee si géew bi. génnagul stade non génn non day seeraan bañ. paa mbañik moom day seeraan mbañik nice. yow la mënul seeraan la mënul seeraan waaw. ndeysaan tey nga man bëre rek laa yëg moom yàlla xam na ko moo tollee fii ci làmb moom dangay xam ne maa ngi def sama liggéey lu ma neex lu ma miin mais lamb boo indee nit lay métti. waaw booy affaire bi ci yow la gën a. Oh, affaire bi kay maa ngi doog a yëg li gars yi di yëg ndekete. kon yaa ngi doog xam ni supporter so waaw mooy ñun amuñ seen fay yàlla xam na ko waaw rajo. jaajëf mbër dangu dangu nga indi sa frère. mu fas yéene bëre combat bu rëy diggante ma soq nan ngeen ko waajee. non comme ni ñu daan waaja rek ñun xam nañ adversaire bi. biñ ko wax bu ko defee rek incha allah dina am ndam lu rëy. bëre nga ak soq. daan ko. moom muy bëreeg moom lan moo ko mën a génnee ci combat. moo tax ma ne la xam nañ adversaire bi li ñu entraîné rek la ñu indi incha allah te dañuy am ndam incha allah. bëre wala ci xeex. bëre dóor ñu def lu am rek warul bett kenn. Eh. jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël Siteu te ku ne xam na ni ki nga jël Siteu la ban préparation nga koy préparé ak noo koy waaj. comme ni ñu daan waajee rek am lu ñu yokk tuuti rek. jot nga laal. waaw moom laa laal. jotaan ma la laal de. bii damay def nii damay indi droite bi. ay jànday sax. building. building ci loo maa ngi sant. mais félicitations. jërëjëf. nga bëre combat. yaa ak Assane. vraiment combat bi li doon xaar mooy gaaw. mais combat bi expliqué ma nan ko bëree ba daan. combat bi dañ koo teg ci yoon rek ndax dëkk moo ñu yónni. te xale bu ñu la yónnee dangay dem yónneen dañoo ñëw teg ko ci temps bëre ko ci temps. yàlla may ñu ndam ñu ko nag yàllaa ñu may ndam rek dañuy sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñetti waajur bu baax di ñaan sama papa waaw ñetti waajur laa am sama papa ak sama ñaari yaay waaw di ñaan sama papa fi mu tëdd gënal ko fi mu jógee di ñaan sama yaay gudd fan lool di sant Basirou Gueye bu baax sama papa sonn na ci di sant Malle ndax bàyyi na lépp ñëw di sant waa mbir ki laan gi yëpp. jël ci ni nga bëree ngay xeex ak Assane Assane Dias mais saa yoo xeexee xeex bi sa avantage la mais dëgguwoo ci xeex bi lan moo taxoon dëgguwoo ci xeex bi bëre daan ko jël bu rëy. xeex bi santuñ ma ko sax liñ ma def loo mooy bëre bëre loo leen ma def mais damaa gis buntu bu ma bëree xeex laa gis ma paree xeex paree bëre ñaar laa indi loolu laa la waxoon bala ma doon bëre noonu la demee. di sant mel ni defet baax na baax na ci mbër ndax sa combat bi mujj da nga koo mais bi nga ñëwee da ngaa rectifier erreur bi nga perte. non combat mujj bi noonu la mënoon a demee sant yàlla la. jaam bi lu la yàlla teg rek santooge mais man ñu ma topp xam ne ni ma mel man sama boobu xam naa man maay kan li ma ñàkk lu nekk rek damay sant yàlla mais xam naa man may kan te ñu bi gaa mi ñu ngi fa di di sant ñii nii ñii ñii ñi xam ne fu ma dee ñi dee fa nu ma mel. doyloo ma. bilaahi lépp ñoom la amul ko la mu yor ay fruits la yor moom soq ci supporters yi yóbbu soq kan la sarax da jox góor wala jigéen waaye soq ay fruits daa xam fi mu teg waa Pikine ay saan xolal joxe ma saraxe ay banaana mi ngi làmba ngi ñëpp tegtal la ndeysaan ci mikaay bi bari na génn kay re Jacob Baldé ndeysaan ñaari paa ngay wax nee na ko noo bul ko laal Ndeysaan Diène Kaïré Jacob Baldé Ndeysaan ma nga wax ak Boy Kaïré Ndeysaan ña nga noonu kii Jules Baldé ko indi kii Boy Kaïré ko indi làmb gi Ndeysaan xoolal ma làmb ni mu yéeme Jules Baldé indi doomam muy bëre Boy Kaïré indi doomam muy bëre laa ba ngi nii kàggu ndaysaan arbitre baa ngi wax ñoom si toor nduur la mu ngi leen wax li règlement bi nangu ak li mu bañ laaj na ay siisam avertissement benn pour Mbagnick Kaïré avertissement benn pour Jacob Kaïré Jacob Baldé ñoom ñaar ku ci nekk am na benn avertissement ay ca arbitre bi sifflé na wuro wa dem na këng waxi mag dem dañ taali dagg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb jéen kayre mbañi kayre moo leen féete ginnaaw jiital tànk droite ndeysaan ma ngay bëreeg Jacob Baldé moom ngeen jàkkaar lool mu teg pied gauche ndeysaan pied gauche ak pied droite la sama papa ja doon wax père Birahim Ndiaye yàlla na fi yàgg te wér yàlla na yàlla guddal fanam sama papa la yàlla na ko yàlla may wér yàlla defal ko jàmm defal ko njaboot gi defal ko mbooloo mi jullit sama papa jooju père Birahim baax na woyof na yaatu na bëgg na nit am na cofeel ci nit am na yëg-yëg ci doomu aadama père Birahim ndeysaan ko wax ci père Birahim Ndiaye mu ne la dëgg ga moo ma neex ci moom mbaax ja moo ma neex ci moom diine gi moo ma neex ci moom lislaam gi moo ma neex ci moom ku mu yar yar na la ci diine ak lislaam ndeysaan mbokk yi combat baa ngi noonu dox ci diggante ndeysaan Jacob Baldé ndeysaan ndaysaan ak Manick Kayre Manick ñaap na ndaysaan Jacob ak Manick ñoom ñaar ngay lewaatoo ndaysaan dara xewagul ndaysaan ñoom ñaar a ngi noonu ndaysaan ñoom ñaar li ñu njëkkee du ñu ko mujjee ñaari xale yi déedéet bi àtte na bu ko njëkkee du ngeen ko mujjee di ngeen laale di ngeen xeex du mën a ñàkk ñoom ñaar arbitre bi sifflé waat na ndaysaan loolu nag xaw ma siñu lan la ndaysaan ndeke làmb ñaari mbër mën nañoo tous rek nga xam kuy daan dal na ma démb ci grand combat bi Ndandi Fall ak Dame seen bi ñu tuusee rek nga xam ne Ndandi Fall ña ngay xeex ndaysaan ña xeex du yomb Jacob Baldé nda ndaysaan ak Mbagnick Kaïré ña ngay xeex ndaysaan Jacob Baldé Mbagnick Kaïré ndaysaan ña nga noonu mbaadu gaaw kan mooy song ñoom ñaar ñaari xale lañ bu ñu songantee làmb ji jeex lu leer laa lay wax bu ñuy songoo làmb ji di jeex xeex nañ xeexaat nañ ña xeex ndaysaan Mbagnick Jacob ña ngay xeex ndaysaan public bi yuuxu na ndaysaan ñi ànd ak Mbagnick yuuxu nañ ñi ànd Jacob yuuxu ñaari xale yaa ngi noonu combat bi dina gaaw wala déet ndaysaan ñoom ñaar ndaysaan xel combat bi lu ne mën wax combat bi mun nga koo atte ni Jules Balde mooy bëreeg Boy Kayre combat bi mun nga koo atte ni Balde mooy bëreeg Diène Kayre combat bi tay mu ngi dox ci diggante Mbagnick Kayre ak Jacob Kay Jacob Balde moo tax lamb dafa garaaw lamb saa ne mu lay wan boppam xeex nañ dóor mu daanu mbaa du am xeex nañ ña ngay xeex dóor mu daanu mbaa am ña xeex ña ngay ñoom ñaar da dóor daw na jëli tànk ba ndaysaan Mbagnick ndaysaan Mbagnick a ngi dóor ci loxo yi ndaysaan Mbagnick xeex ñoom ñaar ndaysaan combat bi dina neex combat xale la ñoom ñaar ku ci nekk combat déclenchement la ci yow ñoom ñaar ku ci nekk daa bëgg a wane boppam ndaysaan muy Mbagnick ndaysaan muy Jacob Baldé ñoom ñaar ku ci daan mun nga am ku ne ci làmb ah. ndaysaan mbañik kayre mbañik maadu dara sonn ndaysaan ndaysaan mbañik kayre ndeysaan ak Jacob Balde ñaari mbëri ñu ngi ci combat bi ba tey ndeysaan Mbagnick ak Jacob Balde da ngay xeex dal nañ jàppante ndeysaan Mbagnick rocceeku waat na ndeysaan Mbagnick rocceeku waat na ndeysaan ñoom ñaari noonu Mbagnick Kaïré Jacob Balde Mbagnick boo génnaatee saako di nga ñàkk sa combat ndax di nga am 4 avertissement te boo amee 5 avertissement ñàkk làmb ji mu ngi koy gëdd na ko génn na saako yi woowaat na ko ci digg géew bi ndeysaan woowaat na ko ci digg géew bi nee na ko dama lay rey. ndeysaan dem na Ardo Mbagnick Kaïré dem na Ardo ndeysaan ndeysaan Jules Baldé dugg si na wax yuuxu na wax na lu ne sànni na loxo ndeysaan ndeysaan manjaago baa nga daanu coppam ba guutey gelaaño ba lànk naa du ma bëreeg manjaago ndeysaan làmba gi saa su ne mu lay wan boppam ndeysaan xale yaa ngi noonu arbitre bi sif la waat na mi daa sonn ah fii signe de fatigue lay def de Mbagnick daa sonn de Mbagnick mi bëggatul ci combat bi dara ah. wala stratégie la bu muy teg wala stratégie bu muy teg gis nga dox na ci koom daa mel ne stratégie la Mbagnick a Kairé ndeysaan ak Jacob Mbagnick a ngi ay békk ci suuf ña xeex Mandiaga ngi dox ci koom ma ngay dóor ma ngay dóor dóor na ko Mandiaga ngi dóor laa ilaaha illallaah ña ngay xeex Mbagnick Jacob ngi dox ci koom galaaj yaa ngi dagg lu ko Boy wax lu ko Boy Gaynde jël na tànk ba ma ngay xeex ña ngay bëre ndeysaan jël na tànk ba laa ilaaha illallaah waaye lamb mag da koy changé waay Mbagnick changé na combat bi ndax Baye ji ñëw na téye ko Jacob ji ñëw téye ñoom ñaar ku ci nekk bi ñuy dugg si waatee ci géew bi dañoo changé temps ba jeex na xale yaa ngi nii waaw waaw xale yaa ngi na dama koy rey la ilaha illallah eh. arbi bi sif waat na mbokk yi baa ngi noonu dox ci diggante Diène Kaïré wala boog Mbagnick Kaïré ndaysaan ak Jacob Balde ndeysaan ñu ngi noonu Magny Kairé ndeysaan ak Jacob Balde ñoom ñaar xale yaa ngi ci combat bi ba tey ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ngi noonu ba tey a ah, sànq de ni ñu def balaa arbitre bi leen atte neexoon na trop ñoom ñaar ndeysaan neexoon na de ndeysaan Mbagnick Kaïré ak Jacob Baldé ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi leewaatoo ba tey ndeysaan ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu jiili boo daan bëre kombaa mu toll fii ñu atte premier temps bi jeex ngeen dem ardo ku ci nekk boo ñëwee nan nga mën a def ci combat bi ba génn ci. waaw cest à xam nga lamb li may wax ne rek quoi mooy li ma wax ne ni da nga war a da nga war a bëgg lamb bëgg lamb nag mooy da ngay fexe ba xam ne lamb à tout moment mun na jeexee jeex bu gaaw mun na jeexee temps bu gudd aussi xam nga mais tout rek bu demee nii rek toujours dem naa damay gañe waaw. ñoom ñaar fi mu toll nii kan ku ci nekk lan mooy avantage am ci combat bi ni nga leen gisee. ku ci ne avantage am mooy que jëm a jàppante bëre kenn teel sa morom sinon bu ko nee nii rek kenn du ko ah, moo ci gën a set xeex. waaw ma ñu keeree ma ñu keeree mu gën a set xeex. waaw mais Jacob Baldé loxoom kon combat baa ngi noonu. ñu ànd ceeg Jili mu bu Faas. parce que man Jacob man Amara la ñuy xoolee quoi. moom moment bii nii nii kii nu mu tudd nii eh, non Jacob Baldé Paare Baldé la ñuy xoolee instant bii nii parce que Paare man moom ñu bokk génération c'est bëri noonu man ak moom xam nga mais Paare rek la may jox. mais combat la combat boo xamante ni ñun ñun naa ay naataango lañu ku ci ne mu ko daan morom waaw. làmb dégg ngeen Jili Mbaye mu Faas li mu wax ci ñaari xale yi ndaysaan xeex bi bu jaare yoon. ki nga xamante ne mooy euh, albarka ndaysaan mën na ko waaye Jacob Balde loxo bi daa diis gann ñoom ñaar ba tey ñu ngi ci combat bi ndaysaan. Baye Djili maa ko abonné démb ak tey man ma man lay liggéeyal. ndaysaan amee raw naa sono si. ñu ngi noonu ndaysaan ñoom ñaari mbëri actuellement ku ci nekk mu ngi taxaw waaye fi mu toll ni Jacob Balde bu amaatee beneen avertissement Djili day ñàkk combat bi de. waaw ma ñu kéré na trois Mbagnick Mbagnick yaakaar naa am na trois avertissement. am na quatre avertissement. am na quatre sa avertissement bëri aussi baaxul si moom. waaw yaakaar naa boo beneen rek. mën na mën nañ jox ko koy disqualifié exactement oui. oui oui. Ndeysaan dégg ngeen. Mbagnick am na quatre avertissement Jacob Baldé am trois. actuellement bu temps bi jeexee. Jacob Baldé la ñuy jox ndam. bu Mbagnick génnaatee saako yi. Jacob Baldé la ñuy jox ndam. kon Mbagnick fi mu toll nii bu arbitre bi jox leen ku ci nekk avertissement ba tey euh, Jacob Balde lañuy jox ndam gis nga li ma doon wax a ngi noonu lamb jeex na jeex na cinq avertissement quatre jeex na disqualifié nañ ko jeex na. waxoon naa la ko moom moo am lamb lii moo tax mbër da war a jàppante bëree bëree bëree waaw mais nag na aussi ñun ñoo ñëpp bëri nañu quoi xam nga donc euh, voilà. lamba ngoog ndeysaan lamba ngoog lii geste bu naagis ñoom ñaar bu doon noonu jàppante saafonte ñoom ñaar du ay noonu lamba rek boole waaw li gars yi war nañ jàng lu bari nga lamb lii la quoi du coach maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay lam présenté wu tuuti pour ñi la xam waaw coach euh, euh, principal de écurie Yoff ñu ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi di lay sant di lay gërëm. Gosu dama taxaw fii léegi laay gote. Ah. mu nekk rakk Modou Anta. mu wax ma diggante ma caatu yoof combat bi woon na ba affiche yeeg yëpp génn démb bi ñu woone ko kaay signé contrat bi bi muy jaar ci APH bi lañ ko woone ko xale bi delloo na avance bi loolu yëgoon nga combat bi wala lan moo tax ngeen delloo avance boobu. non loolu moom yëguñu ko woon sax en plus aguñu euh, sa foofu parce que caatu yoof ku ko xam ñi mu daan ñi mu daan euh, booy bi daanu ko xam nga ñun tey bu ñu jëlee bu ñu jëlee booy boobu laay goote bu ñu ko daanee du ñu yóbbu fenn comprendre nga. loolu nga gis ñun loolu lañ gis Thiatou Yoff dafa daan moromam yëpp actuellement nii dañ koy may sens ci kaw mu dem yoonam mais ñu jël combat bu ndaw. lan moo tax ngeen nangu joxe accord ba moom mu départ ñëw ba promoteur bi sax nee na moom moom moo ma ko wax nee na ba promoteur bi defar na affiche am ba affiche bi pare loolu nan la mën a dale non affiche bi parewul dañ si waxtaan rek jubóo mais problème du sa problème mu yooyu problème mu xaalis la woon lu ñu bëggoon ak ñoom lu ñu bëgg nekkul loolu la woon mais Caatu Yoff actuellement nii ñun du ñu yëreeg laay goote du ñu yóbbu fenn ñu Caatu yoof daan laay goote daanu leen lamb mi ngi suñu kanam nag ñeneen yàlla jàppale rek xam nga xëy na dinañ mës a bëkkante mais Caatu Yoff bon bon ñun du ñu jël euh, laay goote parce que laay goote moom amul preuve bu mu lu mu def ñun suñu kanam waaw parce que Caatu Yoff mi ngi si ñaata combat 14 combat 13 victoire benn défaite. mais nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg li caatu Yoff def ci làmb booy bi defagu ko loolu la rek quoi. am na solo ko. jërëjëf merci. jaajëf jaajëf. dox wala da ngaa ñàkk wala. non damaa rek. xam nga tey dama ñëw si stade bi. ànd ak sama roq samay rakk muy Zogop Zogop Balde moom mooy indi seen stade bi ak Sokku comprendre point ak yow ak Pikine yaa ngi dégg point ak yow. loolu ma indi si combat bi moom moo si stade bi. mais yow yaa ngi ci guddi gu bët seetagul. non maa ngi si guddi gu bët seetagul mooy moom mooy lam comme bi nga jël jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël Siteu. te xam nga ne bu Siteu Siteu la. man bu Siteu man du ma moroomam. lamba waxul dëgg. ndaanaan yu ma daan du daan. yaa dégg ba may wax yow. man géejawaay damaa xam seen sarax. am naa fa quatre victoire xam naa seen sarax. Ah. waaw. saraxu géejawaay non du ma ko wax. le cinq juillet. yaa ngi dégg fi ma yow maa ngi woo sama supporteur yëpp ñu waajal ko Pikine gi yëpp ma kenn maa ngi woo ñoon Ama Baldé ñoom ñëpp maa ngi leen di woo mbëru pikin yëpp Tyson 2 du ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bu mu jëm comprendre point yow ak waa yëpp yaa ngi dégg point yow man daal maa ngi sama ruq di liggéey du waajal bu Siteu le 25 le 25 bu jote bu ñëwee ma wan na ko du ma sa morom waaw noonu la demee nag waaw jaajëf dégg nga ah. jaajëf waaw jili maa ngi nii. sant yàlla. loo nekk actuellement. su lu ma nee maa ngi si jàmm maa ngi waajal soom bopp maa ngi waaj samay combat yaakaar tey sama combat maam Mamou Lalla la ma wax su ah, combat Abdou Diouf bi jàllee si journée yooyu yeneen journée si laay bokk kon maa ngi koy waajaay bu baax. xam nañ dig nañ la. combat waaye taxaw. taxawagul 100 pour cent dina taxaw sax na combat Abdou Diouf bi la kat si jàllee rek. journée yi muy taxaw ci laay bokk. yow ñaata combat nga def arène. man maa ngi si six combat. ñaata victoire. quatre quatre victoire. benn vict quatre victoire benn dafa benn match nul. waaw palmarès bu baax la yow actuellement ci làmb kan ak kan nga daan. Euh, daan na kii Xelkom euh, daan na Rambo non du Rambo bu Géejawaay de Rambo bu ase bu aseg daan na. Euh, bari léegi kan ak kan ak kan kan moo la daan ak kan nga nii la. Mambulaan kii moo ma daan astafurlah Medina Baye. bu Géejawaay mbooloo moo ma daan. ak euh, benn mbër bu nekk euh, fële bu nekk euh, Koungheul. ñoom ñoo ma daan non ma ku ma dëgg kii sax xam kii sax xam nañ ko Medina Baye bu gana bu bu Géejawaay mbooloo xam nañ ko. mais li ñu amul sens daal ñu ngi waajalaat suñu combat di waajalaat suñu bopp daal. waaw am na solo di wax fan si nañu waajaat. ñu waajalaat baa ñu waaw am ndaw mi ngi ci yoon bi waaw jaajëf xam nga ne mënoo rëcc Boy Faye nuyu naa la. waaw fay naa bu baax a baax. Ah, di la féliciter ci ndam lu rëy li nga xamante ni indil nga ko Diourbel barki dem ci drapeau chef de l'État. merci beaucoup noonu lay demee waaw di ko delloowaat waa Sine ak waa Saloum rek ak waa parcelle yëpp 1 26 ak sama gars yi nekk ginnaaw waa Biguine ginnaaw raay gi yëpp maa ngi leen koy may quoi vraiment di kontaan ci yow bu baax a baax a baax. indi ci a bi tey. waaw dañu ñëw rek dañu ñëw dañu dund si làmb rek. waaw làmb moo ñu indi quoi dañu ñëw pour dundaat làmb waaw ndax tamit noonu la war a demee ndax Sokh suñu wóllare démb la quoi. suñu wóllare démb combat bi loo ciy wax. ah lamb la daal ku ci nekk entre liggéey nga li nga war a liggéey mais ku ci nekk am nga masse quoi booy xeex na wóor rek parce que kenn ku ci dóor coup perdu ku ci <laughs> ku ci dóor coup perdu rek mën na perte sa lamb quoi. ñoom ñaar ku daan ak ku daanu. Boy Faye pare na pour def ak ñoom lan. non Boy Faye daf fi nekk pour lamb loolu bu Boy Faye mi ngi fi pour lamb. mais soo maa ngi lamb nu dox suñu diggante quoi parce que moom mooy loolu noonu démb Elzo ba ñëw soq laa wax soq moom maa ngoom démb lañu quoi. ah lamb la. maa gàmmu ngay lamb dàq ko. waaw noonu lay demee. gàmmu <laughs> ngay lu mën a xew. so euh, pare nga pour bëre. waaw lu mën a xew rek pare naa pour bëre ak moom ah voilà loolu la demee. <laughs> spécial baa ngi noonu ndeysaan Kaaw Cissé numéro 2 ak Modou Seras ndeysaan ñu ngi noonu Kaaw Cissé ngeen jàkkaar lool ndeysaan ndeysaan Kaaw Cissé ak Modou Séeréer ndeysaan ñu ngi noonu jël na ko daan na ko di mu yéen Kaaw Cissé daan na ko di daan na booy bi di laaxira yoo xale ba moo mën nee na ñëpp may seen papa damay daan benn par benn kaaw jeex na na bàyyi jàmbur daan nga ko ba pare jeex na fair play kaaw Cissé Mame Mor ndeysaan ñu ngi noonu Mame Mor ngeen jàkkaar lool Paul bu Daaru moo leen won ginnaaw ndeysaan bëre nañ seen première quinze minutes ba temps bi jeex ñu dellu si waat lu ñuy defaat ñoom ñaar mbokk yi ku nekk am na trois avertissement ku ci am cinq avertissement dañ lay disqualifié da ngay perte par décision arbitrale ndeysaan gis nga Mame Mor a ngi dox ci koom nee na ko taxawal Paul dagg léewtoo bi ndaysaan ñoom ñaar bëgg xeex xeex bañ xeex xeex dinañ xeex ñoom ñaari xale yi Paul bu daaru ak Mame Mor ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi Paul bu daaru Mame Mor Mame Mor a na loxo bi Paul ñaari xale yaa ngi noonu ba tey Paul bu Daaru moo leen woon ginnaaw Mame Mor ngeen jàkkaar lool ndeysaan ñu ngi noonu Paul bu Daaru ak Mame Mor ndeysaan Paul bu Daaru Mame Mor ndeysaan ñoom ak Mame lamba ngi nii man lamb bu seere daf may def dàll comme dàll bu xat ci nit rek avertissement xool bu daaru 4 4 4 ñoom ñaar ku ci nekk am na 4 ndeysaan nee na leen bëre woo leen neexul na ci combat ay xale ñu fay leen xaalis bu bari ngeen ñëw ba fii te lu ne wax ngeen ko ci signature yi dina jeex Mama doon na lu ne wax nañ ko jëli na ko daan na ko daan na Pôlu Daaru Mama daan na ko wala déet lu xew lu xew lu xew lu xew Mama daan na Pôlu Daaru Mama daan na ko supporter ndeysaan ña ngay yuuxu ndeysaan kaay ndaysaan mbokk yi combat baa ngi noonu dox ci diggante ñaari mbëri waa pikin yaa ngay yëngal ndaysaan xoolal ma wàllu wee ndaysaan waa Tëngéej yaa ngay lëngu Pikine bu yëngoo Tëngéej yëngu loolu moo lay wan ni combat bi actuellement ñoom ñaari xale yi ku ci nekk la nga ci waroon def yëpp def nga ko ndaysaan ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan làmb ngi nii la ngeen doon waaj ay at combat bi bokkoon na ci combat boo xamante ni daaw lañ ko waroon bëre covid bi moo taxoon combat bi amul doxoon ci diggante Gambu Gueye moom mi nga xamante ni moo nekk écurie Lebu gi wala laale xale bi di Sokh nekk écurie Xam Sa Cosaan nekk yaakaaru Pikine kii nekk yaakaaru Tëngéej soq toj na nen ndeysaan mbokk yi soq moo la wan ginnaaw ngemboo ngembu Lagos bi am lu zone am lu weex Gamou Gueye ngemboo ngembu lu ñuul arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 6 juin 2021 fii ci arène nationale Thiam production moo ñu fi woo il est 21 heures 15 minutes dox ci diggante soq ak Gamou Gueye mbokk yi soq moo la wan ginnaaw moo bot gox bi yëpp ndeysaan di laaleeg xale bi nga xamante ne mooy Gamou Gueye boo ko gisee ni mu toll dem nga jàpp ni Gamou Gueye moo ëpp doole wala Sokh moo ëpp doole waaye ñaari mbër fii ak laale wu ñu mënoo xam ko ëpp doole Ousseyn combat baa ngi noonu. waaye ji li làmb ji tey daa neex daa yëngu ba tax na kii di Sokh bi mu simee ko damaa kontaan Gamou Gueye bi mu simee ko damaa kontaan ndax damaa xam ne combat bi yàgg gi mu yàgg liggéey nañ ci liggéey boo xamante ni nii. bi sime ko seen i fans kontaan nañ seen i supporters kontaan nañ amateur yi kontaan nañ Baye Djily fi mu toll ci des Baye Djily ñoo ngi xoolante ci biir bët waaye defe naa ne Baye Djily li faaw moom xeex sooq Gamou Gueye <laughs> Gamou Gueye ku ko yeb da koo fekk muy nalaw Baye Djily lamb ji dina neex moo taxit sooq koy xool ci biir bët le ato bi soo yaantoo na waaye ñoom ñaa mbokk yi soo yaantoo wuñu bu fete li tàqee du naanu duñ fi guddee ji Djily. Ndeysaan ñoom ñaari ngi noonu Sokh mbéb na léegi Gamou Gueye taxaw di ko déglu ñoom ñaar ku ci nekk day woo sa morom ci xeex waaye ci bëre la combat bi di mujj Gamou Gueye xale la boo xamante ni nii mu toll doole ji ëpp na noonu Sokh nii mu toll bëre na ak mbër biir Tëngéej ndax Sokh bi mu duggee Tëngéej bëre ki nga xamante ni mooy doomu dàngu doomu dàngu da koo daan fële ci stade Iba Mar mu ñëwaat ne erreur laa defoon ci soq ci gàmm ci doomu dàng erreur boobu tey dama koy rectifier ci kaw gàmmu gëy gàmmu gëy ni ko gàmm fi la doomu dàngu jaarale man foofu laa lay jaarale soq dina nangu loolu wala du ko nangu mbokk yi dañuy xool ñoom ñaar fan la ñuy mujj ba xam combat dina yomb waaye en tout cas lu mën a xew mooy ñoo nduroo tegtal bokk nañu sëriñ wala du ñàkk ñu bokk sëriñ seen ngemb li Ousseyn. baa ji li ni ma gisee soq mii daa mel ni soq daa dem. boo xoolee tànkam boo xoolee moom ci biir bët sax xam ne daa bëgg dem waaye bu demee lan la fay fekk bàyyi jili ndeysaan ñoom ñaar daal xam naa ni balaa kenn dem danga nga xeex ndax combat bi du combat boo xamante ne dañ koy sorxo sorxo wala dañ koy yàqamte li tax mooy combat boo xam ne def na ñaari at parce que préparé wu dañ ko ñoom ñaari mbëri six mois avant soq fekk naa ko Gambie muy préparation préparation mais ñu ngi xeex door mu daan wala déet daan na ko daan na ko soq daan na Gamou Gueye kàbbu lan laa la waxoon la ma sëriñ ba waxoon. lan la lan la nga ma gëyoo. lan la ma sëriñ ba waxoon. nee na soq daan. lan la na ma ma déglu mu ne ma lan kan mooy daan. soq mooy daan su ma ko waxoon ñu lan. ah ñu ne eh, yàq nga lam. moo tax daan na Gamou Gueye. Gamou Gueye daa jël coup bu ma. ndeysaan soq na ko. Gamou Gueye daa jël. daan na Gamou Gueye. ndax boo xoolee ñoom ñaar dañoo weccante. ndeysaan kàggu kaay roccil. samay combat lu sama wax tey du bëri. Eh. parce que nga lu tax. lu waral war a jox champion yi ma bëre ñoom. yoonu ndaw. mënut a ñàkk gàkk gàkk. dëgg la yéen ñii waruma bëre ak ñoom. ñan nga war a bëree ñan nga war a bëree. yaa mën yaa oh! war a bëree. te dinaa bëre ñoom incha allah. kàggu kaay. xale yaa ngay jooy. ndeysaan. xale yaa ngay jooy. nee nga bàyyi leen jàmbur. ndeysaan. soqa ngoog. làmb gi. ndeysaan. bàyyi leen ko. Ndeysaan Sokh ngoog Ndeysaan mu ngi naan gars yi ndànk Ndeysaan Ndeysaan Sokh sonn na Ndeysaan Sokh sonn na ma ngay nekk ci cimikaayam kàggu foo féete Ndeysaan ndeysaan kàggu xool ma tuuti ci ni nga bëree gàmmu gay yàlla xool ma ramar lay fay bu leen jooy waa Pikine a a a tiit sama bopp lamb ji ñëpp ma doon ñaanal te man def defalu ma nit ñi dara barke Serigne Saliou Mbacke maire yi si làmb jek paa yeeg ñëpp ñoo ma doon ñaanal amaana moo tax yàlla suturaal ma man dinaa gën a góorgóorluwaat sama bopp. jëlu ci ni nga bëree gàmmu gay ba daan ko. jili lii du samay combat fii ma nekk du sama place ci lamb dama koy wax nit ñi yaakaar dama ko teg ci wax kese. Sa Thiès Moussa Ndoye ku daan maa ngi lay xaar. ku daan guy gi rëg rëg barke Serigne Saliou Mbacke buñ ma ñooñu ma jëlul ma du ma bërewaat. def na message bu am njëriñ. dafa sigil waa Pikine yàlla yàlla xol bu rafet lay fay. billaay wallaay taf ndaanaa ne fu ñu leen dégg si làmb ko ko dégg fu ko raw barke sëñ man maa ngi ko koy ñaanal borom barke sëñ sokk sa kër. Gambie mu nekk fa di préparer moom ak bébé Diène. ak ndeysaan caatu yaraax jé Bébé Diène nekk ci ay jafe-jafe caatu yaraax gis ko combat ba mu bëree woon ak serpent daan na tey soq ñëw bëre ngay jooy lan la Kalso. moom ak soq dañoo yàgg moom ak soq moom kese Kalso Gambi biir Gambi mu defal ko lu ne waxal Kalso kon kii soq amul fayam looloo waral muy jooy day waxal waxal tooy na waxal jili woo ngi leen may wax ah. dañoo nekk Gambi muy metti léeg-léeg mu bu jeexee jugee entraînement ñëw lu mu lu lekk sax du ko am kenn defalu ko lu mu lekk sax day dem entraînement ñëw léeg-léeg sax lu mu lekk ma dugg fële dugg génn pour jox ko mu lekk. tey combat bi bi mu daanee loo yëg. gisoo bi ma jógee suñu kër benn place laa taxaw parce que xam naa li mu liggéey Gambie moom moo tax amatuma dara dara lu ma koy wax parce liggéey bu ñëwee dina ko wane ci. stade bi moo ma tax boo ñëwee toog sama place rek parce que naa li mu liggéey combat bi doxul muy jug combat bi mosuma ci tiit mais fañ jaar moom metti dañoo jaar fu metti dañoo toog léeg-léeg day metti ju ñun billaay walaay mbokk yi noonu la làmb ja demee gis ngeen combat bi nga xamante ni dox na ci diggante soq ak Gamou Gueye bari na loo xamante ni Sokh wane waat na ko ci làmb wane na ni làmb daf cee am cër wane na ni lim moom ci làmb da koy jëli nee na Moussa Sa Thiès ku daan la soxla jaadu na nee na guy gi ak rëg-rëg ku daan la soxla jaadu na moom soq def na beneen euh, preuve boo xamante ne wane na ko ci làmb Gamou Gueye ti n'a pas démérité làmb nii la ñaari ndamay dugg waaye benn génn mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon ci arène national Thiam production moo ñu fi woon dox ci diggante Gamou Gueye ak soq gam soq daan na Gamou Gueye jël bu amul benn werante di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb bàyyi jiili kàggu ci wasaare làmb